bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman alhamdulillahi rabbil aalamiin bismillah alhamdulillahi wallaahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله xaalal almuriidu seex faal téere xalamti daahi najli sayqihi fa xaala li ahmad dimnul mustapha qultu walil xaqi miltu wa innama al ahmaalu binniyaati sëriñ ahmadu tindoo sa jataay bi yàlla yàq yàq sawaaru aw bayin ca sa tooli baay sa jataay bi yàlla yàgg yàgg sawaaru baay wi nga dal te jekk nga aw bayin sa tooli baay toolub ak jëwriñ jangoroy jañu naa xadimil mustafa mooy tool sa baay dëkk baa ngi nii bokk yaa ngi nii donga yaa ngi nii yitte yaa ngi nii masula danielu sa waay baay ndimbal ak ndimbal ngay boole ak sigal ak sagal sa jataay bi ahmadu neex na seex bàmbaak sa baay noppal nga sun xalifaak rakkam ñi ci sa jataay diw ay diw loo dégg jóg defaral sa baay jikko ji taxoon seex gaynde faat ma mu rëy ma mbir ne la yaay borom tindu di tabaarakallaahu joojawaay jikko ji taxoon seex gaynde faat ma mu rëy ma mbir ne yaay borom tindu di awlaw joojawaay ahmadu toog ci ndooni te manquewul lam doon sëriñ baax ma yaamba baax man yaama neex barkeb sa baay toog ci ndoodi te manki walla mu doon sëriñ ax yaa ka baax man yaama neex barkeb sa baay ax ma yaay borom xosuma sa tooli baay ni nga moome tool yi nga moome mbooleem ñooñ sa baay te sàmma ñu tedd ñi yàlla dénk xilaafa gi alxaaji Aliyu yàlla yàgg yàgg ci bi jataay te nga dar ko say rakk dar la seen baay boole leen dar faaw ngeen laa faale dongo yi gëm sa baay te nga dar ko say rakk dar la seen baay boole leen dar faaw ngeen laa faale dongo yi gëm sa baay ngeen wuuf sëriñ Muhammad mu faalay rakkam kër gaa ngi nii daarul quddus ngi waawaawalaay yàlla yàlla boole salaatuhu wa salaamuhu jox Moustapha ak waa këram sang yaa ngi waay yàlla yàlla boole salaatuhu wa ak waa këram ci Moustapha ngën gi mindeef sil fadli te sant yi li sayxinal xaddiimi dëkk nag moom tubaab yi xëy nu moome jaar jaari seex ahmadu moom tindoodi lay bëgg way xamal ko waa tindoodi jaar jaar yi moom ma ne su ko wax lépp te loo ci wax lum tuut tuut fees boppam xam ngeen ne géej bu ñépp doon tànk di tuur du tax mu jeex ahmadi géej li ya ko wóor caama wam sa sin la feeñ ci tuuba seex mustafa baayam di taawu bamba maam xari maam ma sant joob mooy yaayam te xarimaam yaa baaka jur moom xarimaam te doomu kuñ laa njaga isaam moom faa moom madu faa xujjama siiw ma gor saam doomu kuñ laa njaga isaam moom madu faa xujjama siiw ma gor daaru raxmaan la jànge alxuraanu tey ko bam yëgg te mas la daanu ci seyxu ibrahima jëng alim ja yal na ko buur fay jëf ja ak yeneen ja ba mokkalee la mbind moom yu turuk lool bind moom ay kaamil yu takk lool jébbal ko bàyyi ba kaamil bam ca jógee la soobu yoonu xam-xam ron na ca bàyyi ba Moustapha ay xam-xam jàng na ci Seex Basiiru bàyyi ba borom mbig maag taar ba ak xam-xam ba jàngal na Cheikh Ahmadou Mbacke xam-xam yu bari lool sellal ko moo am xam-xam ba mu fa jógee la dal dem ba gànnaar ci ndigalal baayam ba moo doyu waar jàng fa alaaruudu wal bayaanu teg ca balaaxa kii bu mbar muy daanu jàng fa ay jànginu alquraanu yu bari lool moo mokkaloon quraanu jàngaat fa ay téere yeneen yu wuute ba mujj géeju fees a fees bay sotti bam ñibbisee la delluwaat ci baayam Cheikh Moustapha ngir bëgg doon ab jaamam mu soob yoonu tarbiyam fas yéene xeex ak duniya ak bakkanam ba daaneem seytaana yi nu daan ko doora jàll wakiirlu ak torox lu mel new dàll Cheikh Moustapha far def ko ab bindkatam sécuritaire fu masa toog man ca wetam jaayug njureel jaayu njuréel jëndi ko doon ab jaamam di bay di jox seex Moustapha may baayam noonu la saxoo ba Moustapha xëy laq ci ñetti fan yi barax lu ñëpp a yuuxu seex Mbàkke Gaynde Faat ma wuutu baayam Ahmadu ñëw dal ne ko may sab xaadam Seex Mbàkke far feetale ci doom yi muy tagg sëy yi ak di tudd doom yi Seex Mbàkke far feetale kook mbindéef yi muy tagg sëy yi ak di tudd doom yi ku faatu yit moo koy jullee ñaanal ko tinul ko buur ba yàlla far jéggal ko ku jaaxle baa nga njàq baa nga wopp ba dem fi moom mu dind lépp lépp bu ñaari nit masa dogo ba ñëw fa moo koy lijjanti mbakke wax ja yam fa ku njëkk ku jàng ku ñàkk moom xàmmeewu ko ku ñoo yam fa moom ndax yàlla lay liggéeyal ku ñàkk moom xàmmiwu ko ku woomal ñooyam fa moom ndax yàlla lay liggéeyal du tëju nit du jànni nit du beddi nit moo bëgg nit moo fonk nit moo yëgu nit yàlla ko bind muy jariñ mi fu ma joox jàqare jeex ci jaam ñi foo tudde tey turam wa wax dëkkam ba ngir moo defar nit ngir moo defar tindu di may dëkkam ba Seex Axma moom sagal na waa tindoo di taamuloon xëj ki seen bay beddeeb Seex Axma moom sagal na waa tindoo di te amuloon xëj ki seen bay beddeeb Seex Axma Mbàkke moo jëfal tindoo di lu mu a am mu dal di fab ko indi taxaw naa man axmami tey ñaanal seex axma sëriñ àll yu dundal yàlla na nga wér te gudd fan sa yéene yàlla nga wér te gudd fan sa yéene yàlla na nga ko def yow mbàkke yaa am diine ferloo nga tey rongooñi ngir sa yitte sa baay ba moo la samp kon du betteem sawtu rondo ngay niroo yow sa baax ga ci fonku nit ak lewet ak yaa gi saw turandoo ngay niroo yow sa baax ga nit akub lewet ak yaagim jël nga ba tey noppiim ga ak maandoom ga dellooti jël njàmbaar ga ak dagoom ga yàlla yàlla dooleel taxaara seen ji nga def ko mbàkke balla maam xari jóob yàlla na fan wi gudd yaram wi wér nga sax fi rek di dund sa taxawaay rafet na lool ci kër gi lewet nga lool te uf nga yit njaboot gi yaa bëggu lool sun turandoo te ngëm ko ba foo gisee aw turandoom warmaal ko jaa jëf sa jëf rafet na lool te màgg yow loo mébét yàlla na ko def bam àgg naaxal mu man way wi te ñaan buur yàlla képp ku dégg way wi buur jéggal ax ma jigal tee nga taxaw lu doy na saw wax ci moom des na wa ala alihi wa sahbihi wa sallama baana baana jëriñ wa sallama tasliman ñu ngi ñaan ñaan boroom guddal fanu soxna maam xari bu baax a baax mi nga xam ne tey moom la ndongo yi indil ko daayira bi fii ci këram di ko ñaanal suñu borom defal ko fan gudd ak wér di barke borom Tuubaa ak njaboot gi ñëpp di siyaare bu baax waa daayira bi ci njiital sëñ Ahmad Dieng ak sëñ Ahmad Diop ak ñi ñu àndal ñëpp ngeen siyaare bu baax a baax di leen ñaanal fan gudd ak wér li ngeen yéene ngeen def ko nu kawe seen jot ci barki borom Tuubaa